total boo xam ne gonay U23 yi def nañ ko ca Mali mooy ubbi li nga xam ne mooy yëglikaay yi baneen bu mooy compte Alxaaji Malick TikTok da ko bloqué loolee mën naa diire na 15 jàpp euh, ñaar fukki fan wala mu jàpp euh, weer woo xam ne séngam daanaka du ngeen ko ca mën a dégg wala sax mën na ko bañ a mat waaye lu ci mën di doon ngeen xam ko kon dajjante bi euh, ci YouTube bi la ginnaaw bu ngeen demee fële nga xam ne mooy mbuur ca Saalum ay fan. salaamaaleykum gars yi sama mbokk commerçant yi daf leen commande mu gaaw bagage yi dëgg la Saloum Fane communication daf leen commandé mu gaaw kon ñu xamee ko noonu wéy leen di abonné ci li nga xam ne mooy youtube bi ndax moo fi nekk ah, tey jii fi mu toll nii ginnaaw ba ñu tëjee compte Aladji Malick TV ci tiktok bi loolee daanaka gasi total lañ koy commencé loolu ki ko wax mooy wiiw sport bi nga xam ni wiiwul benn yoon gaynde yi nga xam ne ñooy u yi daanaka nag total bi bu ngeen xoolee entraîneur bi nga xam ne daanaka lépp moom lañ ko sabañ tey sax lu yenu maana la ndax moom mi nga xam ne moo yor équipe nationale U23 yi daanaka xaala wala kasiran bu ñu xoolee li nga xam ne moom la def xamu ko te du coach boo xam ne sax bu war a mën a maanaam am expérience yi la nga xam ni daanaka bàyyi fi ab équipe am xaaj bi yëpp yóbbu ay gone yoo xam ni daanaka gone yooyu xel sax da leen réer beneen bi mooy stade yëglekaay ñëw ci ci li nga xam ni moo nekk euh, kii di euh, Sadio Mané ak ñi nga xam ni ñoom la àndal di gaynde yi nga xam ni ñooy gaynde Sénégal yi nekk ci xëta mu njëkk Aliou Cissé tamit mi ngi ci biir yëglekaay Boulaye Dia moom it nga xam ne daanaka fi mu toll nii euh, mi ngi ci biir yëglekaay bi nga xam ne daanaka moom it def na baneen yëglekaay boo xam ne tamit ñëw na di record yëglekaay Abdou ki nga xam ni mooy Abdou Diallo wala bokk nga xam xam ni moo nekk bu jàllo moom la def ci xëtt mu njëkk di wax ni ma ngay wax ni maanaam amul benn revanche boo xam ni moom lay ñëw di ko jël ci li nga xam ne mooy équipe nationale moom moomee coupe du monde boobee nga xam ni moom lañ yëkki woon ca Qatar gone kees gi wax na lépp ci li nga xam ni mooy yëglekaay bi Sadio Mané nga xam ne daanaka fële ca Bayern responsable unique boo xam ne mooy dàqu entraîneur ba nga xam ne mooy entraîneur na cité nañ ko ca tayit loolee daanaka wax nañ ci démb vidéo boo xam ne bu yaatu la moom lañ mujj dugal démb bu ngeen ko xoolee xam ni liñ leen di wax noonu dëgg gu wér péng la moom la bi nga na ko ak ki xam ne mooy Sylviane Nagelsmann loolu lépp presse bi avoué na ko gi ci benn mi boo xam ne moom lañ def biñ demee ba nga xam ne match bi jeex na juróom-ñetti sëngam moo ci des ci ay minutes ñu dugal ko loolee moo ko naqari woon bu baax a baax ba bi entraîneur bi duggaatee ca werseer ya mu daal di ñëw ah, sabañ ko ko bam saf sàpp ci moom loolee nag maanaam dox seen diggante aw digg woo xam ne moo indi jafe-jafe yi nga xam xam ni coach boobee andi na ko ba ca dirigeant yi jotee mu nekk loo xam ni lu ñaaw la ci waaye football waaye mu nekk loo xam tamit euh, ful la mooy jaay Dakar loolee euh, euh, bi nga xam te ji nga xam ne doon ko donte nag ñëw na Bayern blessé yi sonal ko bu baax a baax loole nag moom mii mënu ci dara ndax dogalu borom bi la waaye li am solo mooy jox na rendez ci match yi nga xam ne moom la ñëw ak entraîneur am bu beesam bi nga xam ne moom la nar a di gunda kontaandaat loolee tamit nañ leen bàyyi xel bu baax a baax ànd beeg Aladji Malick TV am na solo lool jërë ngeen